co-directeur général bu maison de la presse Babacar Touré ñaari ci ay bés ci ginnaaw Sambou Biagui jël napp fonction ki wut bare Ndiaye ci bopp kër gile daa dinay fësal feuille de route am tous les acteurs de la presse doivent se sentir chez eux. yi nga xam ne ñoo nekk ci wàllum presse yëpp maa ngi leen di wax ñu jël kër gi def ko mu nekk seenub kër. solennellement à travailler en étroite collaboration xaritam bi di Lissa Faye mi nga xam ne jël na kàddu ci turu patron de presse yu Sénégal di ko ñaax mu fexe ba dajale presse sénégalaise bi yépp ndax naka ci at yu mujj gis nañu ne presse bi dañoo xaajaloo. Sambou Biagui aura l'insigne honneur Sambou Biagui dina fexe ba dajalee ñi nga xam ni ñoo nekk ci métier bile def maison de la presse bërëb boo xam ni journalistes yi dinañ fi mën a tase di waxtaan di mën a traiter seen ay ndaxte nag loolu mooy njariñu maison de la presse. aller faire le parce que en fait l'essence de la maison de la presse c'était ça. fukki at ak juróom-benn ci ginnaaw itam Samba gi mii moo wutu woon Bara Ndiaye ci beneen poste moom moo jëlaatoon émission mi nga xam ne directeur général sortant bile moo ko doon anime te chaine de télévision Canal Info ba woon. je suis ni ni mu daan animé émission de télé boobee ànd ko Pastef dana ko la presse bile. il sambu tant que di xamle nag moom yorinam bi dina ko teg ci jub jubal ak jubanti comme ni ko njiitu réew mi waxee. fas ni naa wéyal liggéey bi nga xam ne moom laa fekk ci kër gi. waaye itam fas yéene indi ay coppite def promotion li nga xam ne moo di excellence fas yéene itam lëkkaloo ak presse bi nga xam ne moo nekk ci réew mi ak bi nekk ci bitim réew. ngir relever defi yi nag directeur général bu bees bi di ñaax ndimbalu ka liggéeykat ya daal dinay invité itam professionnel média yëpp ñu fexe ba maison de presse bi lee doon ab bërëb liggéey boo xam ne daañ fay liggéey waaye itam dinañu fa def dinañu fa gëstu def. Elle recherche.